collectif taxawu Idy di mbooloo moo xamante ni mu ngi regroupé ay kilifa yoo xam ne dañoo nekk ci Touba ñu amal janoo ak taskatu xibaar yi jàngat mbooleem jafe-jafe yi nga xam ne jamono bi ci la réew mi nekk. ñu gis ne état bi réew mi toll fi mu ne nii état bu catastrophique la ñu jàpp na képp ku am responsabilité jot na ci yow nga jóg taxaw jéem a sauver Sénégal ndax li ñu fiy gis juróom-ñaari at yi moom kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu muy niru. lile moom moo waral ñu tànn Idrissa Seck mu doon candidat bi nga xam ne moom lañuy jàppale ci élection présidentielle yi. dajaloo ne nañu xool ci critères yi nga xam ne nii euh, du ñàkk ku ko dajale ci ñi fi nekk ngir man li ñu bëgg te li ñu bëgg weesuwul sauver réew mi ci fi mu toll développé ko ba liñ ci bëgg ci jàmm ak salaam ak démocratie ak bon gouvernance ak ay ngëneel daal mën a ñëw ci réew mi. loolu bi mu amee ñu taxaw xool ñi fi nekk ñu choisir monsieur Idrissa Seck ci ay principe itam lañ ko choisiré. perturbation yi nga xam ne amoon na ci élection législative yi fii ci Touba Mbacké ba tax ñu bëri voté wuñ loolee ñoom collective bi nee ñu daan ci taxaw bu baax a baax waaye di lancer alerte état bi ne mooy responsable. Touba li fi nekk ci ay centre de vote bari na mat na 45 ci commune bi biir dëkk bi li fi voté normal matul ñetti. centre de vote te normal bi mooy tàmbali midi ak ay manquement yu dul jeex li xew ci élection yi lépp responsabilité état la commencé na par refonte totale de fichiers électoraux bi responsabilité Macky Sall la bi mu ñëwee fekk fi fichier boo xam ne bu leer la ci la Abdou Diouf daanu Abdoulaye Wade daanu ci dafa taxaw ci boobu lu mën a xew dañ ko fiy jëlee indi programme mu ay carte d'identité yu bees yu ànd ak euh, carte électeur fay ci alal ju dul jeex carte d'identité yi baaxul mais li ci day erreur kenn xamul nu mu toll te loola waxtaanu cee kenn da koo neex mu xam ne moo ko arrangé mu def ko. loolu nañ ci teel a wax kon ñu jël seeni responsabilité wax état bi mu organiser élection yu tege ci yoon parce que ñun suñuy carte la ñu am suñu vote la am nañ ci wax d'abord di wax ci administration territoriale bi yépp commencé par le ministre de l'intérieur mu jël ay responsabilités am ñoom collectif bi nee ñu yëg nañ ay bureau fictif yoo xamante ni état bi mu ngi koy waajal fii ci Touba Mbacké lépp ngir mbuxum élection yi. lancé rek leen ñaan ne leen ni ngeen ñu dimbali ci bureau fictif yi nga xamante ni si yéen koy préparé ci dëkk bi te xam nañ ko te it xam ne lépp fu ngeen ko def euh, lancé nañ ay appel doonte ci suñu campagne ci gox goxaat yi xamal leen li nga xamante ni si mooy seen euh, yéene ci dëkk bi ak ni ngeen bëgg a doxalee élection yi te loolu duñ leen ko may. collectif taxawu Idy mbooloo mi ñoom nee ñu ki nga xam ne moo di Macky Sall dafa tiit lool moo tax mu bëgg a dellusiwaat fii ci Touba. waaye it bu fi ñëwee du tax mu am fi dara. xam ne xew na diggante démb ak tey te loo xam ne ay menaces la ak ay menaces yoo xam ne ñu ngi ñu koy def ñun ci suñu biir wëlbatikuwaat fi ne nii ñu ngi mënoo bëre ci ay pexe yoo xamante ni si pour indiwaat fi Macky Sall suba ci ay conditions yoo xam ne yëg nañ ko xam nañ ñi fi xëye woon demoon Ndakaaru di ci dox xam nañ rootum guddi mañ fa def ak lañ ca nasaroon yëg nañu ne fii may wax ak yow premier ministre mi ngi ci dëkk bi ngir loolu te loolu moom nañ xam ne du saafaraw tey liñ ci bëgg duñ ko ci am nañ gëm yàlla te nangu dogalub yàlla. ñoom mbooloo mi nee ñu taxaw nañ temm ngir jéem a sécuriser vote bi fii ci Touba tey te daañu jàppale Idrissa Seck ba keroog muy jël ndam li.